di ñaanal suñu yaakaar tey ëllëg Cheikh Mouhamadul Mountakha saa borom yàggal ko fii te wéral ko barke Sëñ Tuubaa di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadou Ndiir ibnu Cheikh Babacar Ndiir suñu borom dolli ko kattan dolli ko wér te sàmmal ñu ko tey mu yàgg fi lool ak Seex Xaadim noonu lañuy ñuy def rek di nuyu njabootu sëriñ bi yëpp. mu mel nii kenn ci ñaar njaboot gi ñu fi toog ak sët yi muy sëriñ sëriñ Basiru Ndiir ak sëriñ Mouhamadou ak mbooleen njaboot gi yépp ñu ngi nuyu ku fi kenn ku nekk sa ak sant ci turu daayira Touba fi xidmati Seex Babacar Ndiir mu mel ni lenn ci daayira bi la ñuy fas tënk ci kàddu yu gàdd ci doxin bi ci gone yi nga xam ne ñoom ñoo daje woon dañu jël seeni xalaat ak seeni doole ne dañ koo fas yéene jaayante ak sëriñ bi di ko ci liggéeyal jaayante boobu nag yemul ci dëkk bi rek dafa dem ba ci bépp be wala bépp soppe Mbuso ci jaayante boobu ñu jaayante sëriñ Baba pour liggéeyal ko ci dëkk mu tedd bii bàyyi ñu kenn loolu ñëpp lañ ci woo rawatina ndaw ñi nga xam ne ñooy ndawi dëkk bi di soññuwaat bu baax nag ci liggéey bi nga xam ne moom lañu séq waxtu wu nekk mbokki taalibe yi ñi ci jëmale seen yitte di ci gën a feddal seen pas-pas ak seenu taalibe ngir gën a mën a jege sëriñ bi ci liggéeyal ko ci waxtu wu nekk mu mel ni yéen a nga gis bërëb bii ñu nekk ndaw yi dëkk bi ñoo dajaloo di jël seeni ñaar dërëm ak seeni juróom di ko liggéey ba mu toll fii ànd ko ak xarit yi ak sopp yi ak taalibe yi bëggee Mbuso yëpp ku ñëw ci liggéey bii di nga xam ne ndaw ñi ay ndaw ñu am fayda la ñu am fula la ñu am pas-pas lañ ci liggéeyal sëriñ bi nun nag ca bañee xalaat dañoo waxoon ne dëkkab Mbuso Diir bii di dëkkub maam ma Diir Faboy dëkkab Cheikh Babacar Sadikh Ndiir kuréel gi nga xam ne ñooy daayira bi tënku ci daayira Moussa Ndir fi xidmati Seex Baaba Ndir moo di ndaw yu fas yéene ànd di liggéeyal Seex Baaba Ndir ci dëkk bu sell bii ñuy ñaan ndaw loo xam ne yaa ngi dëkk ci biir dëkk bi dafi yeewoo nga bàyyi war xel dëkk bi gën a fonkaat dëkk bi gën a xamaat lan mooy cosaanul dëkk bi loo ñu ko mag ñi war a xame war ko ne war ko jëfandikoo noonu la ko gone yi war a xamee ndax ndaw gat mooy yaakaari ëllëg moo tax ñu war a waajal suñu bopp ci melokaan waajal suñu boppit ci jëf waajal suñu bopp ci ak taalibe waajal suñu bopp ci jaamu yàlla gu rafet tamat sëkk loola balaa mu mën a wér nag mooy gannaaw jaamu yàlla ga ñu boole ci fas yéene ànd ngir yàlla di dimbuleente ngir yàlla fas yéene dëkk bi nga xam ne moom lañu ñu suñu borom tànnal muy Moussa Ndir di dëkk boo xam ne jagleek suñu borom la waaye ku xaman cosaanal dëkk bi ak taarix bi da nga ko gën a fonk da ko gën a jàpp da nga ko gën a joxaat yitte it ñu ngi soññ it suñu bopp di soññ mboolem koo xam ne yaa ngi nekk tuut tànk ca mi nekk ci dëkk bi dafi yewoo nga gën a yokkaat say jéego ci dëkk bi gën a waaxuwaat jëm ci yittey dëkk bi ndax gis ngeen ne kat taxawaay yi fi am yépp ndaw yi rek ñoo ko fi def dëgg la ñi fi jaaroon defoon nañ liñ mënoon lépp defoon nañ seen kéemtalaay kàttan waaye tawféex ji ñu am nag gone yi bu ñu amutoon am xel dañ naan ñoo ko ëppale mag ñi ndax xel mi ñoo am ba mën a ànd boole seeni alal di daj di daje di waxtaane dëkk bi di jëfal dëkk bi loola buñ ko sañoon a wax dañuy wax ne képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te am fi ku fi nekk moo xam doom la wala ab sët la war nga koy ñaaxaat di ko xiir ci mu nekk ci liggéey bii ndax liggéey bii ku ci nekk ba gis li ci nekk danga nga ñee ku ci da nga da nga da nga ñee ku ci nekk kon ñi ci nekk ñi ci nekku nañ leen xool ne leen jàkk te gis doxin ak tolluwaay bi ndax fi ñu doon daane sàng rek mooy mbaar mii nga xam ne ci lañu nekk ay ndaw rek ñoo daje boole seeni xalaat boole seeni ñaar ak seeni dërëm ànd ak seeni ay soppe ak ñi nga xam ne dañuy bëggee Moussa Ndir ñoo fi taxawal lii mu mel ni yéen a ngi gis jumaa ji moom la ndaw yi jëkk a defar ba mu àggee ñu song songu mbaar mii te yemuñu foofu incha allah fas yéene nañ lépp loo xam ne mooy mooy doxal dëkk bi di sàmmonte ak warmaay dëkk bi ndaw yi diir na jëm ci loolu di ñaan nag mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu dollee ñaanal gone yii ba taxawaay bii ñu am ci lislaam am ko ci dëkk bii suñ borom dolli leen kàttan dolli leen xéewal ba fiñ ci bëgg a àgg rek suñ borom dimbali leen ban àgg fa ñu ngi sant koo xam ne rek teew nga ci dëkk bi tey jii ñu ngi ñaan ci barke Cheikh Baba Ndiir suñu borom faj seeni i aajo guddal seen fan wéral seeni i cër ba yéene jin am ci dëkk bi suñu borom mottali ko ñi ngi sant ku fi teew ñëpp rek waaye nag di dog ngant bu baax ci suñu kilifa gi nga xam ne seen nañ ko ci jataay bu léegi muy Cheikh Abdoul Hakim ibnu Cheikh Moustapha moom Cheikh Mahamadoul Bachir di sagub lislaam di sagub murit di sagub daaru minam ndax xam ngeen ne tànn gi ñu ko sëriñ bi tànnal mu mat sëkk li ko sëriñ bi tànne ba boole ko ak nun waxtu wu ñu geesoo gis ko ciite ju mani doon mbàkke ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gën a joxaat suñu bopp bu baax a baax di gën a ñaanaat suñu borom gën laa dëgëral gën laa sàmm bu baax ba liggéey bu réy bii ñu la sant nga def ko na la ko sëriñ bi sante woon tañ ànd ko ak yow ñu ngi jéglu di wàcce faw suñu kàddu mu mel ni waxtu wi la jëkkanteel rek waaye kàddu gi moom fa mu tàmbalee ba fi mu yem mooy ci ndaw ñi rek la jëm muy soññewaat ci liggéey bi nga xam ne suñu borom dañu ko boolee ñu ànd di ko liggéey kenn ku nekk ñu ñuy ñaan nga gën cee jëmale sa yitte ndax gis ngeen tolluwaay bi liggéey bi am moo di mbaar mii ngeen gis mu nekk xaalis bu ne gàññi moo ci dugg xaalis bu ne gàññi moo ci des xam naa dañuy profité rek dugal ko ci donte bokkul ci jataay bi waaye li tax ñu yëkkati kàddu googi bëgg kenn ku nekk xam tolluwaayu liggéey bi moo xam ab soppe nga wala taalibe nga boo fi jógee nga yóbbaale ne liggéey bii ñu nekk di ci liggéey Seex Baaba Ndiir dara féete ci kaw lii ñu nekk moo di di daje di waxtaane dëkk bi di dox ci tarankay dëkk bi loolu nag soññu ci jikko ne dëkk bi rek dañ ciy soññ soppeeb dëkk bi rawatina taalibe bu yaakaar mbusoo ta ngay soppeeb Seex Baaba Ndiir rawatina ku yaakaar Seex Baaba Ndiir ñu ngi ñaan ñu waat ko déwén yu bari mu ànd ak fekke ak tal ci barke Serigne Touba euh, jotaay bi ni ngeen gis mu demee kii ñu làngal euh, mooy jëwri ñu liggéey bi Serigne Touba Faye ki yore kàddu ak daara ji Cheikh Mouhamadul Mountakha Ndir ibnu Cheikh Mouhamadou Ndir sunu jëwri suñu kilifa Serigne Xaalim Ndir moom ngeen di gis noonu ak jëwri ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi yëpp ñu ngi leen di sant bu baax ci seen tur di leen gërëm di jégg lu baax ci kàddu yu yaatu yi jërë ngeen jëf alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñoo ngi yëkkati nuyoo bu tedd di ko jëme ci mbokk yépp akub siyaar waaye di leen ndokkeel ci bis bu màgg bii di ciy fàttaliku jàmbaar Cheikh Babacar Sadikh Ndir di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi sahibul fadila Cheikh Mahamadul Muntaxa di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu guddal aw fanan te may ko ak wér ba li mu naal ngir liggéeyal ko maamam ji Cheikhuna Ahmadul Xadim suñ borom may ko mu àggale ko ci sagoom ba naalaan yenn àggale ko te ànd ko mbooleem taalibe yi ñu ngi ko koy ñaanal di sàkku ci mbokk yëpp ñu ngi ko koy ñaanal fu ñu toll te wér nañu ñëpp ñu ngi ko koy ñaanal ndax ak yàggam sagob jullit yëpp la waaye ndamal murit yëpp lay doon xam naa euh, di donkante bu baax ci kàddu yi ñuy yëkkati ci kanamu kilifa yi waaye xëy na ndigal rek lañ ci am waaye lottu nan wax dëgg yàlla di yëkkati ay kàddu ci kanamu kilifa yu tedd yi li nga xamee ne moom lañu waa daayira bi digale nag mooy ñu lim mbooleem délégation yi nga xam ne nii wàcc si nañ tey ci dëkk bu tedd bii ngir ànd ak ñun xéewal gu rëy gi nga xam ne nii a yaakaar naa ñi xam ñëpp xam nañ ne xéewal la goo xam ne nii fu waay bàyyi ko rek mën nga ca tibb yóbbaale te lu tax mu jeex kon ñoo ngi nuyu Cheikh Abdou Hakim ibnu Cheikh Moustapha Basir teew na ci bis bi te yàgg na cee teew di ci ànd ak ñun kon ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar di ko beral cantuk boppam di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yàggal ko fii lool te ko ak wér ndax xam naa ne la nga xamee ni moom la ko waajuram tànne woon ba andil ñu ko fii ci barab bii di bambay yaakaar naa matale na ko sëkk kon ñu ngi ko ñaanal suñu borom kàttanal ko te dëgëral ko ni ko ku baax ka waxee woon rek Abdul Hakim gor su yiw soosee na doon xikam nay mucc fu mu toll waa Bambey sax foo ko na xam day mel ni loolu dal na ko kon si Abdul Hakim moom mi ngi nii teew ànd ak ñun liggéey bi naka noonu si Abdoulaye Mbacke moom it teew na fi moom sëñ Mouhamadul Fadal ibnu si Mouhamadul Basir ah si Ahmadou Bamba mbaki moom it teew na fi di doom ci si sëñ Abdoulaye. ibnu Serigne Cheikh Mbakke ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Njoon ibnu Cheikh Moussa Basir délégation waa kër Serigne Amsatu Jaxate moom it Serigne bi teew nañ fi ci njiital Serigne Saliou Jaxate ak Serigne Abdoul Khadir Jaxate ñoom it wax dëgg yàlla ñu ànd ak ñu bis bi àndin wu rafet ndax waxtu woo xam ne weer wi teru na dañuy maase di jàng alxuraan di ko jagleel sëriñ bi kon loolu jaadu na ñu xamal sëriñ bi tolluwaay boobu te yàgg nañ ko koo xamal ñoom it sëriñ bi mi ngi leen sant bu baax a baax ci jëf juree joojee waa ga sëñ Aliou Diouf ñoom it ñëw nañ te xam nañ ñoom ñoom rek ñoo yem ci bis bi ñoom it ñëw nañ teew ci bi ànd ko ñun ànd du rafet yaakaar naa sëñ Mout Seex mi ngi nii ci kaw moom sëñ Mamadou Basir ibnu sëñ Aliou Diouf Lambaye naka noonu sëñ Basiroog sëriñ Saliou ñoom sëñ Assane ñëpp teew nañ kon ñoom it ñu ngi leen di sant sëriñ bi gis na leen ñoo ngi sant bu baax a baax waa kër sëñ Babacar Cargaan Ndiaye yi nga xam ne ñoom it ñoo ñoom daanaka ñoo yem ci bis bi li ñu ci war moo leen ci war tey ñu xam ko bu baax te jàpp ko fonk ko yaakaar naa buñ ci limee am Amdi Njaay ibnu sëñ Seex Ndeela ak sëñ Daam Njaay moom sëñ sàmba dañu yóbbaale ñu des ñëpp ñoom teew nañ fi ànd njaboot gépp ñoo leen di sant bu baax a baax a baax di sant waa Njomba ñoom it teew nañ fi ci njiital sëñ Seex Yar Jaañ naka noonu it ñu sant bu baax a baax a baax kuréelu Majmahun Nurayni di leen beral ak cant ñoom ñi nga xamee ni ñooy taxawee ñaari guddi Ndakaar muy liggéey bu am solo ñu yàgg koo taxawee mun Cheikh fedd Mountakha feddliwaat ko bu baax a baax a baax a baax bu yëngu yit daj na réew mépp bu yàggul rek am nañ amal nañ fii bis boo xam ne nii ngir waajale ko ñaari guddi Ndakaaru bis boobee yaakaar naa mësta am bawal ah ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala suñ borom dafa leen kattan ba liggéey bii leen sëriñ bi dénk ci njiital sëriñ Juga jàng ñoom it ñu àggale ko fu kawe njort ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom délégation bu yaatoo yaatu lan ñoo ngi nii ànd ak liggéey bi fi lañ yendu bàyyi seen it yëpp loolu sëriñ gis na ko naka noonu ñoo ngi sant it waa ahlu ndiiran gépp bàyyi ko nañ ci gox yu fasantikoo ñëw ànd ak liggéey bi waaye ñëw it ngir yeesalaat jokk mbokk gi te xam nañ bu baax a baax a baax li nekk ci jokk ak mbokk yi wi ci nekk yëpp waa Tëngéej ñëw nañ teew di njiital bàyyi seexu ndiir naka noonu waa ngaay waa sanc buuna barab yu baree baree bari daal waa ndiiréen bàyyi ko nañ ñëw teew ci barab bii ñoo leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di ko yëgal sëriñ bi naka noonu moom it sëñ docteur Pape Seye moom it teew na fi ànd ak suñu bàjjan yaa Mbayang Seye wax dëgg yàlla moom it jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax ndax képp koo xam ne doomi mbusa nga li la war ci daayira bii moo xam yaa ngi def moo xam defoo ko moom de warloo na ko te ko def di ko def kon docteur Pape moom it ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax lépp lu ñu nekk rek ma nga ca bëgg naa fekke sax jataay bii waaye xëy na ay yitte moo ko dab naka noonu sëriñ bi it ñu ngi lay yëgal taxawaay yëpp waa daayiratu safinatul amaan safinatul amaan bi nga xamee ni ñoo ŋànk mboolem dëkk yi wër na Lambaye gépp di ameel taxawaay bu am solo ñoom it teew nañ ànd ak ay berne yu yaatoo yaato yaat wër dëkk bépp di ko seddale ñoom it sëriñ bi yëg na loolu mi ngi leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm naka noonu maam Thierno Cissé bu jàggal moom it na ànd ak sant bu baax a baax it Yaxooba Juuf ñëw na teew a ah, ku ko xam tamit xamee ko sono da Mbóot mi nga xam ne ni jàmbaar la yoo xam ne ni yàgg naa ànd ñun ci liggéey mbaar mii ni ko sëriñ Fall waxee biñ koy sumbee yaakaar naa yëkkati na addiyaam ju am solo dugal ko ci kon moom it loolu waa dëkk bi xam nañ ko ñu ngi koy sant bu baax a baax di ñaan suñ borom mu dëgëral ko di sant imaamu Moustapha Kunta di imaam yi sant Mbuuna moom it ñu koy sant bu baax ñëw na sëriñ bi ànd ak ñun bis bi ànd na rafet waaye noonu la ñuy borom daaru salaam bâtiment ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax moom waa sëriñ bi moom wax naa ko sant bu baax ndax donte moom ñun dong ñoo yem ci dëkk bi waaye daa ñëw teew teewaay bu am solo ak liggéey bu am solo bi nga xamee ne nii waa ndiiran famille sumba nañ ko mu ñëw dugal ci loxoom def ci lu am solo ba tey indi na ay teraanga ju yaatoo yaato yaatu ci dëkk bi ñu séddale ko loolu it ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di ko gërëm mook soxnaam soxna Faat Jaañ di ñaan borom bi subhaana taala fi mu bëgg àgg yàlla ko yàlla àggale docteur Pape Ndiaye maire de Lambaye moom it teew na ànd ak ñun bis bi fi la yendu xëy na yittee ko nag réunion bu mu war amal moo tax mu dog ngànt waaye nee na mi ngi leen di sant bu baax yéen waa daayira bi xam na ni ngeen ko jàppee xam na dëkk bi ni ñu ko jàppee xam na ne ba muy door wax na ko ba tey ne sëñ Moudou Mbacke mii bi mu jàngee ba ñëw teg na ko ci aw yoon te yoon moom ko tegeen rëccu ko benn yoon kon moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax ginnaaw moom la a teg ci boppu Lambaye suñu borom jàppale ko te dëgëral ko ba li yittee waa làmba yëpp bu fekkee mënu ko it suñu borom man loo ko la ci ëpp ca seen i bëgg-bëgg di sant it sous-préfet bu làmbaay moom it ñu ngi koy sant bu baax teew na mi ngi ci jotaay bi sëriñ bi gis na ko ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal moom it liggéey bi lim ci yéene lépp yàlla ko suñu borom defal waaye di beral ak cant it waa association bi nga xamee ni ñooy xale yi dëkk bi nga xam ne dañoo tënk seen mbopp ngir lépp luy jëmee dëkk bi kanam ñu taxaw ci ñoom gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax ñoo ngi leen sant ñoom ñi nga xam ñoom lañ àndal liggéey bi ñu seen mag soppee maam Cheikh Raye ñoom it ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax di ko xëy na bu ñu limee mën nañoo juum waaye ñu ni sant mboolee koo xam ne ni ñëw nga ànd ak ñun bis bi ñu ngi lay sant bu baax a baax foo ay bàyyi ko muy dondal ko du ngoy muy mbajaan mu bàyyi ko rek ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax naka noonu di jaajëfal waa daayiratu Wakana Haqqan ànd nañoo ñun bis bi ànd nu rafet xam na la leen ca war warloo ko wax dëgg yàlla ñoom it ñu ngi leen di baral ak cant bu baax a baax a baax naka noonu it waa Matlabul Fawzayni mi nga xamee ne ñoom lañ dénkan liggéey bi ñoom it bi ñu ngi wax ne liggéey bi ñu leen dénkan defe nañ ko nu kawe seen jort ñoo ngi leen di ñaanal di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu kàttanal leen loolu it yëgal nañ ko sëriñ bi bàyyi leen xel bu baax a baax mi ngi leen di ñaanal di yëg tolluwaay bu baax it kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax daayiratu Matlabul Fawzayni ci njiital sëñ Mohamed Ndiaye ak sëñ Mohamed ñoo ngi leen bu baax a baax taxawaay bii nga xamee ni moom la ngeen dénkan matal ngeen ko kon ñi ngi jégalu bu baax baax ci guddal gi xëy na mbooleem ñi nga xam ne teew nañ ci bis bi di ay kilifa bàyyi koo ci ay barab mënuñoo lim ñëpp waaye suñ limay kenn rek day mel ne na ñëpp kon ñu ngi doon ngànt bu baax a baax di taxawandi foofu di jaajëfal ñëpp di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla na lépp ak ak jàmm te ñu teewaat fi déwén te lu ci waay yéene yàlla na la ko yàlla man loo bu déwénee ci barke Sëñ Tuubaa ñu ngi koy diis sëñ bi mu ñaanal ñu ko sëñ bi mi ñuy dénk wa rahmatullah mbokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Mbuusa Ndiir ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam te di leen siyaare ci seen bis bu màgg bi di seen màggaluk maam tey jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi nag sang bi ñu fekk ci jataay bi di sëriñ Abdul Hakim ibnu sayqi Mouhamadul Moustapha Bassir di ci teg njaboot njabootuk sëñ baaba Konte Ndiir gépp nuyoo boobu yi nag ñu di ko teg ci loxol sëñ Modou Mbacke Ndiir mi nga xamee ne gannaaw dogalub yàlla suñ boroom suñuy tànk fii moo ko waral di ñaan suñ boroom lépp loo xamee ne. seen maam ja yéene woon na ko ci yoonu sëriñ Touba yi yéen sëtam yi ngeen jëf ci lu kawe njortam fa mu tëdd ca barsàqul muhammadiya gannaaw loolu nag bi nga xamee ne ànd nañoo ak ñun ab liggéey ci ñaari guddi yu ndakaaru yi jaare ci sëriñ Mouhamadou Mbacke Ndiir tàmbalee ci ba ñuy jullee jumaay Masalikul Jinaan ak tey jii di 2019 at la yoo xam ne yàggut lool waaye nag ànd ak jëf ju yàgg joo xamee ne am na xiima ju tol ne bañ tàmbalee ñaari guddi yu ndakaaru yi ak tey jii cant googi nag bàyyi ko ci mbooleem jëwrin yi nekk ci gox-goxaat yi nga xamee ne ñooy taxawu ñaari guddi yu ndakaaru yi jóge ci ñaari guddi yu ndakaaru yi jëm ci waa bawal gépp waaye nag jaare ci loxol sëriñ Mouhamadou Mbacke Ndiir sëñ Mountakha wax na ko léegi bi nga xamee ne ganale nañ Seyxi Mouhamadinil Mountakha ca Ndakaaru bu yàggul rekk teg nañ ci juróom benn fan ñëw fii ci Mbusa Ndiir doon fi def waajtaayu ñaari guddi yu Ndakaaru yi keroog ca buntu dëkk ba ba ca catal dëkk ba fu ne nit taxaw na fa nit ci kaw nit loolee nag di ndigal loo xam ne sayqi muhammadinil muntaqa radiyallahu taala anhu wa nafaana bi yi moo ko joxoon waa ñaari guddi yu ndakaaru yi ne leen liggéey bii ngeen di defal sëriñ Touba fexe leen ko ànd ak ñëpp ndax moomu leen ko yen dong yéen ak ñëpp a ko bokk waaye loole nag sëriñ mu Serigne Mouhamadou Mbacke Ndiir mii di ndawal waa Mbousse Ndiir tey seenu xaadam da ca am ak digg aku jagle goo xamee ne daa toll ne jagle ak digg ga Seydina Omar amoon ca lislaam sëriñ Mouhamadou Mbacké Ndiir ak digg aku jagle la am ci ñaari guddi yu ndakaaru yi ndax bi ñuy jullee jumaay Masaalikul Jinaan ak tey jii diir bu yàggul la waaye ña ko sosoon ca taarix ba tey ji am na ci way ak jaloore joo xamee ne kenn mënatu cee am ju ko ëpp loola nag def na ak cant ak jaajëfal bàyyi koo ca sëriñ maam Thierno ma nga xamee ne mooy jëwriñ ju jëkki ñaari guddi yu ndakaaru yi jaar ci gox goxaat yi yëpp ñëw ci loxol sëriñ Modou Mbacke Ndir mii wàcc ci waa Bawol gépp kulluhum rijalun wa nisa kenn ku ne ci ñoom waa ñaari guddi yu ndakaar yi ñu ngi lay joxe ak cant ci bi nga xamee ne ñi ngi màggal ñaari guddi yu ndakaaru yi at mii ñu weesu màggal la gu xat ndax màggalu Tuubaa màggal la goo xam ne dafa làmb léppi murit yi mën naa ne sax dafa làmb léppi jullit yi wépp xew woo xam ne dañ koy def yaari ay bis gannaaw màggalu Tuubaa xew woowa xew wi jafe dajale ay nit la waaye keroog ba nga xamee ne waa bawal ñëw nañ ca ca njiital sëñ Moodu Mbàkke Ndiir sëñ maam Cerno pëstéef bañ fa am ak njàmbaar ga tax na da leen faa beral seen cantu bopp loole nag sëñ Moodu dara yóbbiwug ko lu dul xéer ci sayxi Muhammadinil Muntaqa fonk kàddoom ba yëg na ne lépp lu sëñ Muntaxa def digle moo ko war a jëkk a def moo ko war a defaaleel it képp ku koy def yëg-yëg boobu la ñuy gis ci moom liy firndeem bëriki démb rekk bi sëriñ Abdul Akim mii yëgle jumaay Bambey daa woote fa ñu waa ñaari guddi yu ndakaaru ya wax ne waa ñaari guddi yu ndakaaru yi genn jëf wër jiitu seen jëf ca jëfi jumaa ja xéwal gu mel noonu nag nit ku ko àndeek yow lépp lum nekk nga ànd caag ñoom keroog ba ñu àkkee ba toog ak sëñ Abdou mii ba waxtaan ak moom xamal nañu mu ne day lii mu ànd ak yenn def ko keroog ba ndigal li jibee moo ko jëkk a defal boppam laata jant di fenk kon jëf jooj yi nag ak melo yooy yi nag ñun waa ñaari guddi yi yooya képp lañuy wër koo xam ne sëñ Tuubaa bu ko déggee da cay sëmbartal léppam maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina kat lii képp la rawee nit ñi daa jibbal léppam sëriñ bi desalu ca dara amul ñaari xel menn xel la amoon amul lu muy mbakkar feggu ci digganteem ak sëriñ bi di ko ber di ko xaari ëllëg léppam da koo jébbale ba mu jeex tàkk sëñ Modou mii nag waa ñaari guddi yi li tax ñuy noosoo ak jataayam dañoo yëg ne mboolem ñun ña ca nekkoon diirub bañ koy sos ba tey jii day doon ab soññee ci ñun moo tax donte ñëw nañ ci màggalu sëñ baaba kunta ndiir ànd ko ak yéen waaye ñëw nañ ngir maraat sëñ moodu ngir bëgg jataayoo waat ak moom ngir ñu dolliku aw màndi ci sëriñ bi sëriñ Babacar Jaxate dafa mës a kër sëñ ba dem kër maam Cheikh Ibrahima Fall def fa diir ba sëriñ bi di ko laajte ba mu dellusee sëriñ bi ne ko Babacar mu ne ko Mbàkke mu ne ko ab diira ngi ma di la laaj foo nekkoon mu ne ko man de mbàkke dama toog ci pénc mi aw rab romb la di jàpp bëgg la ma ne rab yi moo ko dàqee ba jàpp ko rey ko jël xol ba lekk ko danaa la gën a bëgg ma demoon di ko rëbbi ba jàpp naa ko ba ñëw ba mu fa jógee dafa gorom leeg maam Cheikh Ibrahima waaye moom ci boppam it moom sëñ Babacar Jaxate nee na yëg ni ne gannaaw loola ab ciram yokkaat na ci sëriñ bi ndax keroog ba mu waxee loola ba noppi sëriñ bi dafa jàpp ci loxoom jug tëjook moom te mësu koo def da daa wax ak moom rekk ci biir jataay mbooloo kon sëñ Modou ñëw nañ ànd seeg yow yaag say bokk màggalug sëñ Baba Kunta Ndiir waaye ñëw nañu it nemmi ko si waat sab jataay ngir sag murite ci sëñ Touba kon daal kàddug waa ñaari guddi Ndakaaru yi mooy sant njabootu bawal gépp ci turu sëñ maam Thierno Mbacke mi nga xamee ne mooy président d'honneur ñaari guddi yu Ndakaar yi ñu ngi jégglu ci guddaayu kàddu yi jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu ci baatub asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di yëkkati sama kàddu nag ngir ñeenti yëf moo tax may yëkkati sama kàddu fii ci bërëb bi ci Mbuso Ndiir ñeenti yëf yooyu benn bu ci nekk dinaa ko leeralal ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi teew bi ci jëkk mooy. Moussa gii nga xamante ni moom fii la xew-xew bii amee muy xew-xewu diine bii dafa am ay mbokk yoo xamante ni dégg nga fii ci musandiir mooy seen delluwaay ñu dëkk ca sanc buuna ñu def délégation bu mag ma nekk ca bopp ba ak sëriñ Buuna Ndir ak ñi ñu àndal ñépp loolu tax ma war a yëkkati kàddu beneen bi ci des mooy ni kóllëre gi nga xamante ni kunta am na ko ak njabootu Serigne Touba radiyallahu anhu war a tax bu ma teewee ci barab bi njabooti sëriñ Touba nekk fi te ci bopp bi ñuy wax fi léegi deretu sëriñ Touba mu toog nii jàkkaarloo ak ñun war nañoo tax ñu yëkkati sunu kàddu kon ci kàddu ko Ahlu Kunti yi yëpp kon maa ngi yëkkati sama kàddu waaye kàddu googu maa ngi koy yëkkati di ko jox Serigne Touba mi nga xamante ni moo toog ci tànt bi ndax moom la ñuy xoole Serigne Touba moom la ñuy xoole way juróom wa moom la ñuy xoore Serigne Mountakha mi nga xamante ni dégg moom moo jiite yoonu murit kon Serigne Ahmed Al Hakim Serigne Mouhamadul Hakim kon ñi ngi jël sunu kàddu ak sunu ziar ak sunu nuyoo yëpp di la ko jox nga jottalil ñu ko mbooleem ku nekk ci biir barab bi waaye nga jottalil ñu ko umma islam bi yëpp beneen bi ci des ñi ngi yëkkati sunu kàddu ci. jur woo xamante ni maanaam dafa jóge ca maam ya jóge ca baay ya ñëw soo fii ci mbusa ndiir nekk fi woon ak mag ñi muy sunu maam buuna Muhammad mag ñi nekkoon fi di dund ak moom kóllëre goo xamante ni dégg nga kóllëre kunta la ba mu wane ginnaaw waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi dese di sàmm kóllëre googu di sàmm kóllëre googu ba ci ki nga xamante ni moom moo fi wutu mag ñi tey muy sëriñ Modou Mbacke Ndiir mais nga xamante ni dégg nga mook sunu wayjur wi nga xamante ni ki nga xamante ni mooy taawu Cheikh Bounama mi nga xam ni moo indi Kunta fii ci senegal tey moom mooy xalifaam muy sëriñ Ahmed Kunta mais nga xamante ni moo nekk ci kër ga ñu gi ñu gis nag kóllëre gu màgg ñu gis liggéey bu am solo boo xamante ni dégg nga famille Moussa Ndir waa Moussa taxawu nañ ko kilifa googu nga xamante ni dégg nga mooy Serigne Ahmed olof yi nag dañuy wax ni geenu golo gudd na lool waaye lu ca laal borom yëg ko kon bu nekkee fii dégg nga ci dëkk bi ngeen di jël tiraanga yooyu dégg nga di ko delloo ci moom kon bu ñu teewee ci barab bi barab bii waa kër Serigne tuubaa teew fi waaye jullit yi teew fi war nañoo yëkkati kàddu feeñal mbégte moomu waaye feeñal kontaante googu feeñal delloo cër boobu nga xamante ni dégg nga jox nañ ko suñu wayjur woowu di sëriñ Mouhamed Kunta beneen bi ci des mooy li ma ci gën a amal solo mooy ki nga xamante ni dégg nga tey moo fi wuutu mag ñi muy sëñ Modou Mbacke Ndiir mii dama wax sàng ci kër ga ni doomu aadama wala jullit wala ku nite maanaam dafa war a am fayda waaye dafa war a ñàkk bopp gis nga boo ñàkkee bopp jox ko jullit yi boo ñàkkee bopp jox ko say mbokk bis boo soxlaa sa bopp sa bopp boobu dina ñëw indaale bokk sa boppi bokk yépp wala bokki jullit yépp da nga ñëw sëriñ moodu nag dundam daf cee ñàkk daf cee ñàkk boppam sëriñ moodu dundam daf cee ñàkk boppam kon bu soxlaa boppam boppam dina ñëw waaye boppam ba mu joxe woon dégg nga ci ay bokkam bopp yooyu dañ wëlbatiku de nga ñëw ci ànd ak bis moom bis bii kon sëriñ moodu ñi ngi am mbégte ak kontaante ci yow waaye di am mbégte ak kontaante dégg nga ci Mbuusa gi nga xamante ni fi la xew-xew bi amee ak ñi nga xamante ne noonu lañuy ñuy dundee dégg nga ci kër sëriñ Touba. sëriñ Touba radiyallahu anhu dafa xool Cheikh Sidal Muxtaar Kunta ni ko wa seexunaal kunti yu zil anwaari xawsul waraa xut bu raxal muxtaari loolu Serigne Touba moo ko wax boo demee ci masaalikul jinaan di nga fa fekk loolu waaye loolu sëtëm ba seex bu Mohamed Kunta bi nga xamante ni moom moo sañc Njaasaan nekk Njaasaan daf koo tontu jëmale ko ci Serigne Touba radiyallahu anhu daf ko wax ni ko huwal qadiimu bila juhdin nu arrifuhu bi suhdihi kaana seexul badi wal xadari kii mooy Serigne Touba xamle ko moom jërul góorlu ndax jamono ngi ñëw ci jamono ba mu koy wax jamono mu ngi ñëw joo xamante ni ñëpp dina ko xam jarul góorgóorlu kii jamono dina ñëw ba dëddu gii mu dëddu àdduna ci lay demee ba nekk sëriñu baykat ba nekk ca àll bay bay waaye ci lay demee ba nekk sëriñu kayore biroom dénk ca taaxe di liggéey kon mag ñi lii lañ doon dund lii lañu sose tarixa yi beneen bu ci des nag dégg nga ma koy dénk sama bopp di ko dénk képp koo xamante ni dégg nga da ngay sox ci këru tarixa maanaam nga bàyyi xel li nga yore mooy lan jamono bii ñuy toll nii di ko dund jamono la boo xamante ni ci Sénégal am na ay organisme yu jóg organisme yooyu jóg dara du seen itte lu dul xeex mag ñi te yàlla xam na ni mag ñi nga xamante ni dégg nga ñoom ñoo fi nekkoon lislaam bu tasaaroo dey dégg nga ci monde islaam damay wax ni dégg nga grâce à mag ñooñu kon bu ñu demee dégg nga ba jamono ay nit dégg nga ni ñëw dégg bëgg ak jële fi loolu nga xamante ni ci la mag ñi nekkoon ñun ñi nga xamante ni dégg nga ñun ñoo toll ci jamono war nañoo laxasuwaat bu mag bu baax lépp loo xamante ni nag dafay taqal dafay tilimal liggéeyu mag ñi ñu jële ko ci waaye feeñal la nga xamante ni dégg moom la mag lañ doon wax boo liiree mbindum Serigne nga liir masaalikul jinaat dafa critiquer tasawuf li nga xamante ni bokk ci te ñu dugal ko ci lépp Serigne Touba daf ko génne teg ko fële kon ñun bu ñu nekkee ay ndaw kon ñun bu ñu nekkee ay eh, nitu daara bu ñu nekkee dégg nga ay nitu tariixa waaye waaye nañu góorlu ba li nga xamante ni dégg nga mag ñi dañ ko cee jële woon boole ko ci woon ñu ba ñu bañ ko cee boole ndax ñi nga xamante ni ñooy jóg di xeex di xeex mag ñi di xeex daara yi di xeex tasawuf maanaam du ñu mën a am fu ñu teg seen tànk pour ngàññi mag ñi boo liiree téeréb kifaayatu raaxibiin bu Seydi Haas Malick maanaam critique ba mu ci def yëpp dafa génne li nga xamante ni dafa nekk ci biir tasawuf dégg nga te bokk ci mu génne ko ci kon ñun buñ ko ci dugalaat maa ngi koy dénk sama bopp nag di ko dénk ñi nga xamante ni dañ leen di dénk dénk dëpp micro euh, ñuy wax maanaam ñu jéem a delloowaat nit ñi ca mbindum mag ña ñu jàngal leen ko na ko mag ñu doon jàngalee bu ñu ko defee yaakaar naa ni loolu moo dëppoog sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo dëppoog alquran te bu boobaa ki ngay waxaal dégg dina am njariñ dégg ci mag mii nga xamante ni dégg nga ci këram ci ngay so ci ngay soxe ji kàddu yi nag ñi ngi jéggulu ndax ñi fi war a jël kàddu dafa bari te jataay bi yàgg na xanaa di sant rek dégg nga di gërëm di ñaan jàll jataay bii nga xamante ni moom la ñu def nii yàlla na bu mu nekk sunu mujj jataay yàlla nañ ko def ay ati ati ati ati at te at bu ñëw yàlla na gën a neex ci saaxir nag ak ci baatin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Serigne barke mag ñu baax ñi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi fi teew yëpp axlu ndiireen Euh, sëriñ Mohamed Bousso Ndir sëriñ Cheikh Abdou Akim Mbakke bu tegal bu teewal sëñ Muntaxa Mbakke mboolem kilifa diine yi fi teew yëpp mboolem taalibe yi fi teew yëpp ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant maa ngi am mbégte di teew fii. gannaaw ba ñu yàlla suñu borom mayee ñu fekkee woon ko daaw fekkee ko ren ànd ak délégation boo xam ni ñu ngi ci ràññee sëriñ Modou Mbacké Ndiir chef de village ak euh, monsieur Badiane Ibrahima Badiane muy notable ca Lambaye Ibrahima Mbacké Ndiir euh, Modou Mbacke Ndiil tax mu bokk ci délégation moom chef de village la mooy xalifa bi mooy sëriñ bi mooy chef de village bi te sous-préfet fu muy dem bu àndul ak chef de village bu ko fekkee ci délégation mu la bokk leen nuyu yéen ñëpp di am mbégte teewaat ci jataay bi euh, wax ji moom jarul muy gudd parce que li ma fi dégg rek li fi borom barke yi ak boroom xam-xam yëkkati ci ay kàddu jaroon na fi teew ñëw tibb taataan delluwaat euh, kàddu yi kàddu nuyoo ak kàddu ñaan nuyu mbooloo mi fi teew yëpp commencé ko ci ki fi toogal sëñ Muntaxa Bachir nuyu sëñ Modou Mbacké Ndiir nuyu mbokk taalibe yëpp di leen ñaanal wér ak wérle ñaan yooyu ñu jiital ci sëriñ Moon Ndiir ñaan yàlla bàyyi ko fi lu yàgg-yàgg may ko wér mu yàgg di ñaanal taalibe yi ak sëriñ Bassirou Ndiir donc euh, kàddu yooyu moom la woon naa ko yëkkati parce daanaka lu Euh, feddali euh, wax yépp te mu jógee ci kilifa yi daanaka ña ma jiit wax nañ ko ba pare benn bi mooy ki mujjee wax kilifa gi mujjee wax daanaka tënk na wax ji ci contexte bi ci situation réew mi fu mu toll lam fi wax mooy li jar a jàpp mooy li jar a topp loolu mooy chance su senegal te suñu chance boobu kat mag ñee ñu ko liggéeyal Serigne Touba moo ñu ko liggéeyal bàyyil ñu ko fi kenn mënu ko yàq nag da ngay jéem ba sonn rek bàyyil ñu ko fi parce que sëñ bi fa mu ko ñaanee suñu borom liggéey ko ba indi ko yàqu egg fa ba mën ko yàq moo tax ñun suñu xel day dal li koy dalal mooy. sëñ bi dafa liggéey bàyyi fi wane fi yoon yoon buy dàq fitna di yóbbu askan wi ci yoonu yàlla di yóbbu askan wi ci ci yàlla jaarale ko ci sunna Muhammad sallallahu alayhi wa mu liggéey bu wér nga xam amul fen ñoo ñu di wax te sëñ bi xaw leen a tudd léegi dafa nekk ñu ñu yónni te malheureusement xamuñu taarixu senegal ci wàllu diine xamuñu taarixu senegal ci wàllu jàmm am na nag boo fa ñëwee nekk gone di wax te xamoo réew mi yow mën nañoo dégg ci wax yu mel noonu mais ña leen ñabal dañoo jéem ba sonn dañ ñëw senegal fi ñu ubbi leen bunt yi ñu woote ay seen diine seen façon nu ñuy jàmmoo yàlla ñu ñu leen ñëw leen bisimilah euh, jàkk jaa ngi noonu ku mën a nodd na nodd jëf nañu ba sonn. gis ni li fi ma li fi ñoom sëñ Touba dëxëñ nekk ci ay fondation yu wóor mënuñu ci dara ñu ñibbi ñoo ñoo ñawaat ne Sénégal bu ñu bëggee am lu ñu bëgg jaaree ko ci suñu si si si si waaraate indi suñu diine indi suñu façon gisin ci lislaam du sotti nañu fexe jël nguur gi teg leen fitna bu njëlee nguur gi jël état yor armée ñun la bëgg par force dañ koy def wala ñu indi leen fitna mais loolu yëpp réew senegal askan Sénégal mi xam ne mag ñi tàggat nan leen tarixa yi samp fi di liggéey liggéey mucc ayib nit ñi adhéré kenn forcé wu leen Sénégal kenn leen forcé da nga ñëw wax ak ñoom askan mu am xel la da nga ñëw wax ak ñoom indil leen lu wér ñu topp la euh, tarbiwu la ngir jëriñu donc ñooñu fitna boo leen ko indee rek ñu indil la jàmm mënoo leen yëngal moo tax bi ñu ñëwee fii dégg taarixu dëkk bi ak ñi ko sos lañu ñu liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal ko askan wi suñu xel dafa gën dal parce que yàggul rek kilifa yi dañoo euh, yónnee badaaxal nañu wax leen ñu na na ngeen ñu jox. Euh, xew-xewi diine yi gën a fës ci arrondissement Lambaye def nañ ci Mousso mais ba ñu ñëwee tey te ñu fi ay gan gis nañ ni que lañ fa defoon juumuñu ni ko Mousso bokk na ci piliers yi maanaam bu dee diine ak alxuraan bu dee yoonu sëñ tubaab xen yi gën a dëgër ci Lambaye ci la bokk xer yi taxawal lu ñu taxawal mbaaru sëñ Touba. donc buñ ko joxee ni xew-xew diine bi gën a màgg la jumuñ moo tax euh, tey suñu teewaay fii teewaay mbégte la teewaayu euh, am firnde nii réew mi dëgg dëgg euh, mag ñi ko sa ñi ko ñi ko mag ñi liñ fi liñ fi liñ fiy liggéey bàyyi ko fi mooy suñu teraanga mooy suñu sécurité te comme ay kër yu mel nii Euh, Moussa Ndiir ñu ngi koy ñu ngi wéyal liggéey bi gën koo xóotal gën cee ñaax taalibe yi gën cee ñaax gone yi ñu am na yaakaar ni Sénégal képp ku fi bëgg indi lu dul jàmm hmm, sa bopp këpp danga nga jéem ba sonn bàyyi ñu Sénégal suñu Sénégal nga dem soon man loolu laa firnde boobu laa am te tey bi ma ñëwee fii gën nañ ma ko euh, won ci intervention yi kilifa yi jël kàddu wax bu loolu wéyee ñu ngi leen di indil euh, nuyoo kilifa yi ñu fi yabal dalee ko ci préfet département bu Bambey gouverneur bu Diourbel ministre de l'intérieur ak président de la république incha allah li fi jëlee te mu dal suñu xel lool bu ñu demee danañ ko eggee wan leen ni kat bu ñu tëddee nañ nelaw réew mi bawol bi nga xam ni euh, li mu joué maanaam li mu taxawaayam ci yoonu sëñ Touba kenn dootu ko natable fii jàmm rek moo fi am te jàmm ji am fi mooy am mooy nekk jàmmi réew incha allah euh, maa ngi yemale sama kàddu foofu di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla ñu fekkaatu fi ay déwén yu bëree bari yàlla may ñu wér ak tal ak fekke allahumma salli ala sayyidina muhammad kon xam naa bana jox mu du kàddu gi ñu jàllale fi liggéey bu am solo boo xam ne suñ jëwriñ sëriñ Modou mbàkke Ndir di sëtti Cheikh Babacar Sadji Ndir moo ko jiite woon muy wàllum jàng alxuraan ci weeru màgg wi nga xay ne muy Shaaban suñ borom dafa def ñeenti weer yoo xam ne dañ leen a wormal jox leen wàccuwaay weeru Shaaban wi nag da cee bokk waaye saxbaan ci boppam dafa waxan yàlla ne ko danga ma def ci diggante ñaari weer yu màgg kon analan mooy sama cëru yow suñ borom suñ borom daan ne ko def naa la ngay weeru jàng alxuraan dajeeg bisab seex sa Sadikh ndiir sëñ Munu Mbàkke ak gone yi mu ko àndal ci ma Matlaboul nii ak sëñ Mouhamed Faye ni xasida yi ñu jàng ñeent fukki kaamil yi alxuraan jagleel ko bis bi jagleel ko seex Babacar Sadikh Ndir ak mboolem ñu fi nekkal kon loolu wane na ne xale yi xam na bi dëkk bii di ko sant muy alquran te ñu ngi ciy bay seen waar ci góor góorlu kon dañuy jox sëriñ Mudu Mbàkke Ndiire ibnu Cheikh Babacar Sadie Ndiir mu yëkkati kàddu su ko defee ñu jox sëñ Abdou Hakim Mbàkke mu ñaaxaat dongo yi daal di ñaanal yàlla dafa leen tawféex bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokk fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sunu nuyoo nu ji jiital Cheikh Abdoul Hakim moom Cheikh Mamadou Moustapha Bachir moom Cheikh Bachir moom Xaadim Rasoul jataay bi mel na ne sëriñ Touba gi nii toog ndax lu dagg ci guy guy doo ngu lay mën a doon sëñ Abdou ma ngi nii toog kon sëñ Muntaxa ngi toog moo ma ne fu Abdou Hakim ne maa nga fa sëñ Muntaxa ma ko wax cët cët dëkk boppam ba euh, Mbul Kayel maag maag maag maag Matar Diagne ne ma Abdou Hakim ma waxtaan ak mu ne ma fu Abdou Hakim ne maa nga fa loo loo loo bëgg ci man ci fànn sàngam jaaral ci Abdou Hakim kon sax Abdou Hakim nu ngi lay nuyu di la siyaare di sukk fi suuf bu doyul nu defee nu di la siyaare di di xamal mbooloo mépp ne jëmmi sëñ Muntaxa ngi nii toog ndax moo ko waxan ñu di la siyaare Mbàkke di ñaan nga ñaanal nu ñaa ñaanalaale sa sa sa sëriñ bii nga xëy ne kenn mës gis ku mel ni man muy Cheikh Mamadou Muntaxa mu yàgg fi lool ba lépp lu mu naal mu àggale ko ba naan la leen àggalewaat ko naaraat la leen àggale ko yàlla mën na ko dama jàkkaarloo moom ko sëñ bi nu ngi ñaan ci sa barke yal na la yàlla nattu yàlla na la yàlla nattu bu ñetti yoon ma ne ko natt bi mooy nga yàgg fi gis dund goo xam ne gii sun mësunu koo teg bët fenn gu ànd ak wér càndang loolu yàlla na ko sëñ mun taxaam jërë ngeen jëf sëñ Cheikh Anta nu ngi sant yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa di sant yàlla bu baax a baax a baax ak sëriñ Tuubaa bi mu nu tànnalee am maam Seex nga jiite Lambaay doon fi sous-préfet bi doon kook sa waajur yi dañoo jeex ci maam Anta Seex maam ba jeex ci takk nga ñëw làmbaay ngir taxawal fi administration bi nekkal fi président ma Sall kon liñ séentu ci yow ba andi la fi yàlla nañ gis ci yow lu ko ëpp te mu doon lu la jikk ci barke Sëñ Tuubaa so soo jógee lambaay gii di dem yàlla nay doon sa yéegukaay li tuwaay wax promotion na doon sa promotion boo xam ne bii da yéeg jom foo xam ne fii yaakaaro woon ne mën nga àgg foofa yàlla na ko yàlla defal ci barke Cheikh Abdou Hakim Cheikh Baraja ko ñaan yàlla na la fa yàlla saxal ci liggéey bi nga am ci barke am ci ndam bu loolu jàllee waa mañ daayiratu Majmahun ni noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ci jiital maam Thierno Birahim moom Cheikh Mamadou Mountakha ci kàddu sëriñ Juga Dieng ak délégation bi mu àndal sëñ Kalsaan Dieng ñoom ak sëñ Talla Gueye ñoom ñoom ñëpp ñu ngi nii bàyyi seen yitte su ma yeboo ne démb ba tey ndax xew-xew yi bari na ñëw ca suba yendu fee ak ñun ba waxtu wii te bu ko sunu borom dogalee insa rabbi Ndakaar lañ bugg a fanaanewaat ak Touba Mbacke kon sëñ Ndiouga nu ngi lay nuyu ci turu waa dëkk bi bépp di la siyaare di ñaan yàlla barkeel sa liggéey bi am na barke waaye na ko sunu borom dolli ndax barke bi maam moo tax man ma dugg ci liggéey bi kon jàggee na jëf sëñ Ibrahima Ndong yow it nu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la siyaare ndax yaa nu ba duggal nu ci biir bu loolu jàllee. suñ tuwaa fay yéen waa daayirut xaayimatu Cheikh Baba Kounta Ndir jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yéen ngi liggéeyal ku am ak pay yéen a ngi liggéeyal ku am ak pay moo ko wax ci làmmiñu boppam moo wax ne Cheikh ak Aliou Alla ci ca Mbóol ak ñañ àndaleen ñëpp ne leen man lebuma dama am ak pay ku ma liggéeyal ma fay la suñ baabaa ko wax ca làmbaay sëñ muudu sëñ muudu mi fi tey def xalifa fekke ko te li tax ma ne am nag pay nun taalibe yi neen ci loxoom di liggéey fii ci gent bi dañoo xëy di di ak kàddu gu ñu gor fa màngooy bàyyi gànn faye loolu mag ñee ko xam sëñ baaba demal boppam di ko radu ba yàgg mu taal ko ba yàgg nu seen sëñ baaba ne ci biir sawara wa ne ca biir mu génn loxo yu xuyum kawar loxo yëpp lakk mu toog ki sump gi di julli yoor yoor biram njaay ca làmbaay ñëw nuyu ko nu dikki dikki dégg ko mu yuuxu boobu maam lañ ko def nu ne la muy jooy de moo ko wax wax ca lu soob mu daal na nu si leen fii nu ñëw toog mu ne ko Ibrahima Njaay mu ne ko ndiir sëñ Ibrahima Njaay ne ko sëñ baa boo woon taalibe yi waxuma taalibe bokki làmba yëpp ni leen toxal leen suuf si fi nekk dinañ ko toxal mbaa fi la nuy dee mu ne ko accam xalaas Ibrahima Ndiaye dama diggeeg sama borom bu yow yowmal xiyaamee ca ramm ma ku dégg saw tur dugg àjjana ku ma dégg saw tur duggal la àjjana giñ naa ci sama bakkan ne moo ko ma fekke ko nee na dara du ma ko du ma ko xañ damaa war di liggéey ba ba wàcceeb liggéey loolu def na ko gerteem gi mujj a bay fii ca fam doon foofee mu toogan di julli fa lañ ko jal Touba Ndir ñi ko xaman xawan naa am ab taxawaay 62 1962 jamono yooyu député yi ay 403 la ñuy war ay 5 places Aliou Fall mën na ci bu làmbaay Touba Ndir danaa taxaw ca wet gee tàll loxoom ndax séen ngéen ma ñu ne ko déedéet ci jalab gerte bi nu ne fa sëñ baaba daal yor dokk ba ak téere ba ñëw taxaw di wax moom yàgg dégg mu naan ndokk ndax daf ne Touba Touba da ko ne bàyyi bu ñu jaayee gerte gi nga jox xaalis bi Aliou Fall mu jënd la ci ab oto oto buy def juróom nit mu ne ko soo dabee yeneen juróom nag nooy def mu ne ko juróom rek kala ma def mu ne ko teen ko dugal ci oto bopp koo dab yóbbu ko mu ne ko fu moom mu ne ko jox naa di sëñ Basiru gerte gi Touba ne ko dut nu bay mu ne ko ndok ca la mujj a béyee gerte maa ko fekke kon yéen ñi koy liggéey ngeen góorlu bu baax a baax a baax a baax xam ne ki ngeen di liggéeyal nag pay am nag pay de te gu wóor la gu wér lii may wax ne dama bëgg ngeen gën a doon góor góorgóorlu xam ki ngeen liggéey mooy kan Ahmed Diouf taalib sëñ baaba la fii la yaroo fii la neen sëñ baaba yor ko mooy bàyyi baaba juuf mais nekk ca ñi bi da toxu Tuubaa léegi di taalib sëñ muudu sëñ Ahmad mii Ahmed Diouf daa jóge fii tàggu sëñ baaba tukki dem mbuur ca séeréer su ñoomi ngi kese di nappi jën seen gaal daw ñaari fan duggu àll bii dem gaal nga toj daanu mu yuuxu ne yaa Seex Baaba Gunda Ndiri gis aw fasu mbëngu wu ñuul mu jàpp ca geen ba mu naaw ak moom ba génn ci biti sëñ si dem a ko nattali ba mu sëgg di fari daalam xool gisul dara mu daal foy dox dugg duggaal bi ba àgg mbuur daal di jëlëb saagam di ñibbi ab sàkkoos mag ñi sàkkoos lañ daa wax sëñ Baaba xëy fii woo sëñ si di ne ko dama gàttal Maamit Juuf ci yoonu garaas yoon waa nga fee moom sëñ baabaa nga toogoon fa ne fa fa déem gaan ci ginnaaw kër baay buuna da ko ratlu ba mu set mu toog fa sëñ siiri daal di wër dem toogaat néegam ne ko tukki ñetti weer xaw ma fu mu ne fu ma koy wëree ñu toog ba ma di mu ne siidi mu ne ko maa ngi nii mu ne kaay mu ñu mu ne ko gàttalul kee di ñëw mu dem dajeeg moom muy Amet Diouf Amet ñu jox ko loxo mu ne ko na nga def gaal ga Amet yuuxu mu ne ko ba ngay dem ci sama loxo nga tegee mënoo ñàkk a dellu si sëñ baabaa def loolu daam njaay yéen ñëpp ko xam deman na ba doon taalib sañ muudu bopp kenn ëpp koon lu muy jëf ci kër sëñ baaba ñi ci magaan it waaye jëf moom kenn ëppale ko woon yàggut a wàccab liggéey baayam sëñ Abdourahmane Ndiaye taalib sëñ Muudu Faatu Juufa woon sëñ Abdourahmane Ndiaye ñëw tàggu sëñ baaba dimanche ca ngoon ci làmbaay ne ko damay dem ndakaaru mu ñaar ko ne ko na nga xëy ci altine ji altine jot Abdourahmane demut demut talaata demut àllarba alxames ci suba sëñ baaba teg ko fii watir bi Touba Ndiiré bu Kanjee ko yóbbu mu dem mu ne muudu mbudo sëñ muudu mi yebalal ndaw mu woole mu seetali ma Abdourahmane fu mu nekk mu yebal sëriñ gasama la yebal wala Sidi Diagne xaw ma la comme ci waaye ñaar ñooñu kenn ci nga dem ca daara ji dem dajeeg moom muy génn mu ne ko ñu wut kuy sëñ baaba mu ñu teg saag bi ci buntu kër gi jox ko loxo mu ne ko Abdourahmane sonal nga ma ñeenti fan yi roogu ne Ndakaaru foo naa ko juróom-ñaari yoon mu yuuxu daal fay wacc saaku daw dem jàpp daw euh, daam njaay ko jébbal naa la ku mën a wax ak ru doomu rom kon yéen a ngi liggéeyal ku am ak pay ku am ak pay ngeen di liggéeyal ngeen góor góorlu lu baax nag ñi ma war ñëpp ma ko gën a xam dafa jafe kenn mënu ko am ci bànneex sëñ Tuubaa ba muy wax bi fi bari te sajara ca gabang aw mu tëdd taxan jaayante naa yàlla faroon garab gi kenn séedewu ko ku dul ndox mi jàngkat yaa ngi nii sëñ Bass Abdou Khadre dama ko ne la sëñ Touba daj da ngaa war daj lu ko raw ci karawaanu màggal gi mag ko wax mu ne ma du loolu mbir xewoon mu ne ma du loolu sëñ Sidi Muxtaar la yaram bi sutaate ma ne ko da ngeen ma ko war a wax ci yoon wi laa bokk sëñ Xaali Jaxate da ko ci wax na dëgg moo waral ca déwén sa nu ànd def karawaan am nañu ci bokkan ñu wër fii nu wër département Bambey dem ba Ngunjaan mu dem ba euh, euh, dëkk ba nu mu tuddati gaat gaat dugub yee dugub yee woo koŋŋ maral ñu ne sëñ Muudu Mbàkke si dañoo bëggam ñaan nam ndox ma ne ko giñ naa ci sama bakkan boo ñaan sëñ Muntaxa muy taw mu ne ko dina taw giñ naa ci yàlla ba nu julli ci timis xamul fu nekk daa taw ba baase ñu baase la daanu ci suñ kaw kon liggéeyi leen tàmbali leen lii ngeen di liggéey bu ngeen déggee jaajëf jël leen ko takk ci seen digg rii wuti liggéey li sëriñ Touba moo xew de li Cheikh Moustapha Kounda wax dëgg la réew mi ñu ngi fëkk waaye ku diis kenn du la fëkk ceeli du fëkk lu diis diis leen am leen jom am leen fulla bu leen kenn ëpp ngor bu leen jombali seen bopp dara sëñ Moustapha ne sëñ Mountakha ne xool leen ci man nan xool ci moom ku dem ma dem ku demul ma dem la wax te sëñ Mountakha wax na leneen loolu bu doon ci sëriñ si la sama pap xeej ñëw ma kenn ci sëriñ Tuubaa sëñ Muntaxa ko wax waraa génnew ca kenn ku seen mu xel dem génnew ko ca tàmbali di jëf lu kenn mës a jëf ci àdduna nan mu yàgg fi sëñ Abdu nag nu jéggal bu baax a baax a baax xelaata na noo wax da suñu xel dafa dem yéen waa daayira bi daal góor leen lu ngeen man góor góorgóorlu lu ngeen man daayira du jàng rek du bokk yéere du bokk di waxtaan defarab dëkk ak doomu aadama moo ko tax a jóg ngeen dugal seen al seen xol ak seen xalaat ci alxuraan ak xam-xam mbaar mi jàkka ji armel yi daaraa ko gën a ñor armel yi gën a ëpp tabax te amuñu tuyaaba kon taxaw leen ci daara yi itam fexe seen rakk yeeg seen doom yi jàng am xam-xam ëpp leen xam-xam ni ngeen noppee xam-xam noonu ñu leen jur yéen seen i doom ëppee leen ne xam-xam bu ngeen ko defee dëkk bi ne tege ci yoon ku jàng xam-xamam jub di nga jub ngeen góorgóorlu sëñ Fall dégg naa li mu wax dëkk bi kenn mënu koo yàq ki ko sanc du suñu moroom ku ko bëgg a yàq-yàqu ki ko sanc moroomante ak nun dëkk bi am na ñett téeméer ak ñaar fukk 1702 lañ sanc Mbuso gii ak mennaat la ko mën di sañ ba mu taxawee tànkam ya lam yenni koo ci boppam ba ay téere alxuraan la kon dëkk bu mu maaseel bu dëkk bu mu mag moo la jiitu ci lislaam mus mbuso mbuso mbuso su fee jaamoy xërëm te li may wax fi la leen fekk yow Thierno Mbaye bañ ko sasee 702 ba 1974 lañ fi tëgg tamak ña ko tëggan dañoo dee say bokk lañu li may wax lu ma wér la ragaluma li may wax 702 1702 ba 1975 ñu tëgg lu fii ci mbuso ay tama ña ko dëgg ñëpp a faatu ah, ñu sant ndiir bokk ci it li ma arrière ma ci de ñëpp a faatu kon dëkk bi ki ko sanc du sunu morom ku ko bëgg a yàq-yàq nañ leen góorgóorlu bu baax a baax sëñ bi na ngeen ma jéggal baal maak sëriñ bi nee na ñu nangu ñaan rek wax ji matale na li sëñ Moodu wax rek yóbbaale na ay kàddoom te jotaay bi yàgg na kon nangu leen ñaan fu waay toll nay wax amiin amiin آمين آمين آمين آمين آمين المصطفى ما يجر لهم سوى العبادات وسوى من السرعة وسوى لغيره مستان في أبدا وتفهم كل من يسوء من البصر ودسل في الداخل مرتار جميع به وسوى لهم مجبات الأمن والبصر وكان قلوب سوى الإسلام في أمن وتفهم كل من يسوء والسالدة بلم تسليم عليه من لهن دمون رجل بصحبة آمين اللهم سا سلطان حزيم وإيمان قديم السروة الكريم آمين ولي الكلمات التامات ودعوة المسلمين آمين طول لنا عمرنا سهل لنا امرنا وحب الرسل والتوفيق لله امين ودمرا كل اعداء تضرب بنا حب الرسل امين سنتوا امين جرى جرى